wax tey lii sa de waaw yaa wax lool waaw waaw ay Basiru yaa wóor ay yi mu jàppee mama la lekk ko de tey sama doomu yaa yaa wóor de <laughs> mbokk mooy bëgg a noonu lal benn parkaal bu xongu ñi ngi jël benn bideel di ko jox mi ngi noonu yar ko moom Tapha Mbeur Cheikh Sarr mooy wax ak moom noonu sotteekoo na ko gis nga léegi yiñ teg noonu Tapha Mbeur mooy bëgg a tuus noonu. gis nga yor na benn butéel kenn ku ne càpp nga ca wiccax ña war a tëgg gis ngeen Tapha Mbeur mi ngi noonu xale parcelle baa ngi noonu war a dajeeg Liss Ndiago moom Liss Ndiago gis nga nga mi ngi ci tus mi kamandal ma nga yor genn ginaar di ko jaarale ca xarante tànk yi yenn saay mu bomb ko ci kaw yaram wi genn ginaar ko xonq la liisa ngi noonu moo war a bëre Tapha Mbeur moo war a bëre grand bi ñu ngi ci arène nationale gis ngeen mbokk yi Liss Ndiago ngi noonu xale jàmm gën bi gis ngeen ko car macha allah mobilisation bi nee naa la bu jógee waa jàmm gën jóg phénomène la moom Liss Ndiago day mobiliser day ambiance gis ngeen ko arène nationale ni mu ko melal tey. aja champion tëgg tëgg di dañuy bañ ba doon li ñu doon di góorgóorlooy mooy jamaale ñeme jam jamoo. kubi kubi. lu ko